jërë ngeen jëf mbokk yi ñu siiwur ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak seen seen leader bi di people di nuyu suñu kilifa diine yi waaye di nuyu suñu kilifa aada yi di ñaan réew mi du Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm réew mi du Sénégal borom dolli jàmm di nuyu yi nga xamante ni caabi da leen féete ginnaaw yàlla suñu borom may leen liberté ak indépendance ba ñu delluwaat seen njaboot di ñaanal ñi nga xamante ni yàlla da leen a jël ci coobareem yàlla suñu borom yërëm leen te jégal leen te xaar leen ajana Euh, tey nag ñu fas yéene waxtaan ay ponk yoo xamante ni ku ne gis na barki démb procès bi nga xam ne moo amoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak kàddu yi nga xamante ni jot na faa jub euh, mu nekkoon procès boo xam ne nag daanaka def na presque trois ans ak euh, ñi nga xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakkan yàlla na leen yàlla yërëm te jégal leen ci noonu nag la ñu fas yéene waxtaanee ci ponk yooyu ak procès bi ak leneen ak leneen ci wàllu xam-xam ki ma dalal nag m di Serigne Moustapha Sylla borom solution. fas yéene waxtaan ak moom ci lu bari sëñ bi dañ lay bàyyi nga nuyu ñooy siiwul. auzu billahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim. subhaana man laa hawla wala quwwata illa billahi al azim rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli euh, mbokk yi maa leen nuyu képp ku ñu seetaan foo mën di nekk maa nuy nuyu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. am na solo sëñ bi ma bëgg ñu njëkkee ci li nga xamante ni. moo di procès bi amoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr mm. juróon coow lu bari ak bakkan yi nga xam ne jot na ci rot mm. ba barki démb bu mm. presque ba quatre heures du matin ñëpp a ngi toog tribunal di xaar naka nga jàngatee mbir moomu waaw loolu analyse bi ma si def mooy bu njëkk muy Sénégal def naa Sénégal ñëpp war a ruus ndax euh, maanaam maanaam ni mu demee muy Macky ni muy doxalee ak euh, ay adversaire am politique am te dafa ruslu maanaam nga jël sa adversaire politique di ko giñ lu man a viol loolu rek dafa dafa nekk loo xamante ne ku si rusu rek da xamoon mu nekk tamit projet boo xamante ne tamit euh, lu tardé Sénégal la tamit ndax maanaam projet bu taxawee rek maanaam day mel ni économie réew mi day taxaw mën naa ne ay Sénégal man na Sénégal ñàkk na si ay milliards milliards si projet bi rek li nga gis ni ñàkk na si ay milliards yoo xamante ne ak ñoo xamante ne maanaam maanaam ñàkk nañ si seen ay ay ay doom ñoo xamante ne avenir réew mi la ñu woon seeni waajur tamit ñoom lañ yaakaaroon kon dafa nekk loo xamante ne lu ñaaw la Sénégal ñaaw si deru Sénégal maanaam Sénégal dafa jóge si kaw daanu si suuf maanaam lii dafa nekk loo xamante ne euh, maanaam képp kuy Sénégal rek euh, da si yurus lool lool lool. Euh, waaye nag yàlla moom defe naa moom bu la yëkkatee nit bu la bëggee suufare kooku noonu day maanaam day bu la bëggee suufal moom mooy suufe waaye waaye doo laal suuf. Mm-hmm. loolu nag la yàlla defal Ousmane Sonko lool ma waral maanaam pièces yi koo xamante ne Macky Sall teg na ko li yëpp. lépp lu mu ko lu ko teg ci pees bëgg koo yi maanaam euh, maanaam am amu ci ndam euh, waaye nag euh, Ousmane Sonko maanaam li ko yàlla may maanaam yàlla da koo may ba nga xamante ne maanaam li ko yàlla may maanaam bu fekkoon keneen la rek moo tax man dama koy dama koy ñewante laa dafa nekk nit koo xamante ne tamit maanaam da nga koy yërëm neexul tamit ak maanaam nit taxaw di la giñ naa la yaa ma defoon yaa ma defal ta nga am ay doom am ay ay soxna. Euh, loolu nekku ci deru nit maanaam maanaam nit koo xamante ne maanaam dafa am looy loolu maanaam manaam lu ma bëgg a wax mooy maanaam as góor maanaam as dafa nekku si deru as góor nga di ko tuumaal loo xamante ne naa ko yaa ma defal yaa ma defal te mag Sall loolu lay def loolu lay def Ousmane Sonko boo gisee mu mu maanaam lii complot moo si nekk complot bi nag. Euh, Adji Sarr li muy wax maanaam jàkkaarloo Ousmane Sonko na yaa ma def li yaa ma def li di di di ko di ko di ko di ko di xaw ay suturaam ak di wax loo xamante ne fan yii rek maa ngi dégg muy wax loo xamante ne euh, mbir mu doy waar la. loolu nag moom maanaam képp kuy Sénégal rek moom mënu koo rafetlu euh, di wax tamit maanaam li may wax rek di ko ñaax mooy na Sénégal yi gën a farlu xam tamit fi ñu jëm te fañ bëgg fañ fañ bëgg a àgg incha allah moom yàlla dañ fa àggale waaw. d'accord am na solo ma ñëw ci wàllu seet. ku ne xam na ni seet mooy buntu ñaan seet am ay am ay façon mhm. yu xaw a wuute mhm. euh, ci wàllu seet laa bëgg ñoon di ci ay yaatal waa seet nag moom mën naa na ñaan mënoo koo defal nit ki te seetuloo ko euh, ndax nit ki pour nga pour nga mën koo ñaan ay faut nga seeta ko ba xam ay mbiram xam lan may rawaxaanam xam ban tabixa la bokk xam biddiw la benn biddiw la bokk ma daal sëriñ bi pour ma mën a ñaan nit ki dafay fekk mu mën a day fekk mu bu njëkk muy mu xam seet ndax bari na sëriñ yoo xamante ne dañuy fay dañuy fay nit waaye di nga ko ñaanal ndax lu ko waral mooy nit ki bu fekkee ne xamoo tabi xam rek loo ko joxee garab rek yaa ngi koy yaa yaa ngi koy fay. Euh, war ngaa xam tamit bu tabi xam nag li muy li muy jariñ mooy day tax nga xam nature nit ki maanaam nit ki boo xamee nature am xam biddiwam xam tamit biddiwam ban heure lay génn ndax tabi xam maanaam tabi bu fekkee da ngay xool nit ki mu jox la turam ak ak date am euh, boo xoolee nit ki mu nekk lu ma ne naar yu si ngay xamee nit ki natiram da ngay xam ne nit wu wërsëg lay doon waaye te maanaam ñi xam ne dañoo nekk naar yu day nekk nit ñoo xam ne nit ñu wërsëg nit wu wërsëg la ñu doon waaye nit nit ñoo xamante ne ñu am engagement la ñu doon ñoo xamante ne daal euh, maanaam ñoo xamante ne nit ñu nit ñu farlu la ñu doon si seen seen seen seen bopp nekk nit ñoo xamante ne fu ñu dem dañuy jiite maanaam fu ñu dem si ñuy jiite la ñu bokk waaye nag nit ñu mën a yëg seen bopp la maanaam ñu nangu kenn koo xamante ne dina leen féete kaw waaye di leen di leen jiital ndax dañu yor jikkooy gaynde waaye nag nit ñu wër am wërsëg la waaye duñ téye duñ téye alal maanaam lu ñu am rek dañ koy joxewaat comme ni nga ko waxee dañu yor euh, jikkooy gaynde ndax gaynde moom boo xoolee natiiram day nekk loo xamante ne moom euh, bu xëyee suba moom day day day day dem rëbb ji li mu rëbb da koy fàdd tey maanaam jëfandikoo ko tey bàyyee ko dem jéggi ko dem yoonam maanaam li muy fàggu suba du maanaam du fàggul dara ngir suba ñooñ nag euh, jikkoy gaynde lañ yor maanaam nit ñoo xamante ne euh, fuñ toll dañu am alal waaye alal ji duñ ko duñ ko téye dañ koy joxe waat waaye nit ñoo xamante ne lañ dañuy doon nit ñoo xamante ne dañuy dañuy bëgg àdduna ñoo xam dañuy bëgg solo bëgg lu rafet euh, Euh, bëgg lu rafet daal waaye tamit nit ñoo xamante ne tamit euh, comme ni ma ko waxee fu ñu dem rek euh, si ñuy jiitu sa lañuy doon maanaam si kenn du leen jiite daal noonu ñoo la doon waaye nag li leen li leen di sonal lu bare bari muy cat wàllu cat cat daal bokk na si li nga xamante ne ñu faral moo leen di faral di téye seen i mbir bu fekkee ne ñi nga xamante ne dañoo nekk lu ñuy wax turaab yu ñooñu day nekk ni ñu mun a muñ ni ñu mën a muñ la ñuy doon nit ñoo xamante ne ne Euh, duñ gaaw a mer waaye nit ñoo xamante ne ñu ñu ñu mën a liggéey lañ fonk liggéey waaye euh, dañuy liggéey man dañuy liggéey ba sonn waaye duñu am dara ndax boo xoolee ñoom seen tabian trois bi dafay boot biddiw bi ñuy wax euh, biddiw bi ñuy wax cap cap capricorne capricorne boo ko xoolee si biddiw dafa nekk biddiw boo xamante ne biddiw bu lëndëm la biddiw bu guddi la loo ma waral ñooñu dañuy ñaanlu ba sonn ba fekkee nit ki da nga koy ñaanal te xamoo biddiwam rek kooku noonu da nga koy fay ndax kooku noonu dafay dafay naqaree ñaanal ñi nga xam dañu nekk capricorne arab di ko wax jaddiwu ndax biddiw bi moo lëndëm te biddiw bi dafa nekk biddiw boo xamante biddiw bu sori la loolu moo tax nit ki nit ñu mel noonu pour ñu ñaanal leen ñu bare bare dañ leen di fay sax waaye pour ñu maanal ñaanal leen jàpp leen maanaam yombul loolu nag bu fekkee nag koo xamante ne xam na seen biddiw euh, day mën a xam exactement ban heure la ko mën a la la ko war a maanaam la ko la ko war a ñaanal la war a toog war koo wér di ñaanal ko euh, li mu bëgg mu man mu mën koo am seet daal loolu lay jariñ loo ma waral képp ku ñuy seetal bi la xoolale ba noppi da nga bari na sax barki démb rek defe naa am na koo xamante ne kata daal nekk bi may seetlu euh, moom bi may seetlu defe naa dan dana ma euh, waa Casamance la waaye yaayam dafay ñaan waaw dafay ñaan waaye euh, am na ay jafe-jafem daal da koy rusa wax yaayam ndax ndax yaayam moom lu ko mën nett lu baree bari ndax yaayam day am lu mu koy nëbb daal da koy rusa wax bi ma ko xoolee ba noppi ma ne ko yow ak sa yaay maanaam da ngeen a ma ne ko yaag sa yaay day na jubóowul sa yaay nag maanaam mënam dana ma woon sama yaay ñaankat la waaye dama ko rus waaye ma ne ko yow sa yaay ñaankat la waaye xàmb yi maanaam wàllu xàmb yi lañ yor ndax xam nga xàmb yi ñoom yi nekk nit ñoo xamante ne ku jiitu si maanaam ku mag si si si si famille bi rek yow yaa yaa yor xàmb yi fekk xàmb yi ñoom fekkee na jinne yoo xamante ne jinne xàmb la ñoom ñooy choisir ku leen di ku leen di ku leen di yor waaye ñoom du du ku mag si famille bi rek moo ko yor ma ne ko Euh, ki nga xamante ne moo yor xam bi moom mooy caatu caatu famille bi moom la jinne yi nangul kooku noonu si ngay dem mu sang la boo ko defee say mbir de sotti bi ma toog bi ma ko waxee loolu euh, dafa toog lu yàgg-yàgg ne ma yow est-ce que xamoo ma ko loo tax ma ne ma yow dafa ma danga maa xam ndax li ma doon nëbb di la nëbb ne maag sama yaay jubawuñ loolu nga wax loolu dafa jaaxal ba léegi kon yooyu noonu maanaam nit ki seet rek nga ko mën a nga ko mën a xoole ba xam ay mbiram xam tamit lan moo ko jàpp ndax kooku noonu kooku ma lay wax noonu Euh, jinne yi ñoo ko jàppoon ba nga xamante ne euh, bu xasee ba réew maanaam bu jegee frontière day am jafe-jafe loo ma war a yàgg na Europe waaye day tëdd di feebar ma ne ko il faut nga ñibbi ñibbi si euh, dem dem dem dem sangu ji boo ko defee rek sa mbir dina dina kii waaw loolu daal mooy njariñu seet ndax seet moom loolu rek moo moo ko mën a génne seet rek moo mën a génne jafe-jafe nit ki ak tooluwaayu nit ki waaw loolu mooy solo solo seet d'accord am na solo ma ñëw ci li nga xam tamit sonal na daanaka ndaw ñu bari mu di wàllu ubbeeku wàllu wërsëg nit ñi boo xoolee jamono ji ndaw yu bari ñu ngi dem ci naar bi ñii di mbëkk gaali ci wàllu woowu noonu di wàllu ubbeeku di wàllu wërsëg tamit waaw wàllu ubbeeku maanaam ndaw ñi léegi dañoo war di fonk ñaan fonk ndax bu njëkk ñun maamee lañ naan def boo boo demee ba nekk waxambaane mat góor dañ lay waajal waajal si anam yëpp waajal la si samp li ñuy wax samp maanaam dañ lay garage yoo xamante ne maanaam ci kaaraange ci wàllu ubbiku looy dem seet da nga koy danga nga da koy am ndax am na euh, ñaan yoo xamante ne maanaam garage yoo xamante ne bu fekkee da nga war a jéggi frontière garage yooyu nag bu loo ko defalee da nga foo dem man da am te da nga da ñibbisi te boo boo ñibbisi da nga indaale alal kon ndaw ñi dañ leen di war di waajal si wàllu ñaan te léegi nag jamono ji toll ñaan dañ koo caaxaana caaxaana ba nga xamante ne nit ñi daana dañ ko woyofal daal te ñaan dafa nekk loo xamante ne moom mooy baasu nit boo xoolee maam ya suñu maam ya maanaam ay ay fital maanaam fital yu ñu yor nekkul yoo xamante ne fital yu kii lay doon yoruñu ay arme waaye maanaam galaaj la amoon galaaj boo xoolee laj joor ndam yam daan am yëpp boo xamante si diggante tubaab yi nga xamante ne moom la daan jàmmarloo maanaam lépp loo xamante kii maanaam euh, Euh, gàllaaj moo ko daan moo moo moo ko daan moo ko daan téye boo xoolee sax ba ni nga koo xamante ne dañ koo fexeel ba rey ko loolu lépp maanaam dañ koo dañoo xam maanaam ay gàllaajam dem ba jàngat gàllaajam ba xam bal bi nga xamante ne moo koy kii moo si lañ ko kii waaye bu fekkoon ne jam diggante moo tubaab yi rek ak gàllaaj yi mu yor tubaab bi mënu ko dara kon gàllaaj daal moom mooy aar nit moom mooy moom mooy porté si nit ba nga xamante ne moo koy samp tamit li mu bëgg da koy mën a am si àdduna waaw damay wax ndaw ji rek ñu gën a fonkaat di ñaanul defarowaat waat i yaram ndax jamono yi toll Euh, yàqante bi bari na adduna bi daa jaxasoo na moo tax daal nit ki fu mën war naa war naa fonk ñaan toog si lu dëgër ba nga xamante ne kenn du ko buux ba mën a daanu loolu daal laa si wax. d'accord ma ñëw ci li nga xamante ne tamit daanaka jamono ji mm-hmm. sonal na ñu bari rawatina kër yi. Mm-hmm. sëy yaa ngi tas. Mm-hmm. kenn ñemeetu la toog. ñi ñaa ngi dem di jëli comprimé. mu di wàllu ngóora di wàllu impuissance sexuelle. waaw wàllu ngóora nag moom bokk na si yu koy joxe muy feebaru dareet yi bu mu ne feebar dareet nag moom da man da si bokk li wax euh, hémorroïde daf si bokk euh, hypertension ba si sax ndoxum si teeg yooyu yëpp ba day joxe lañ joxe maanaam néew néew kàttan yi nga xamante ne ñoo joxe néew kàttan néew nag bu mu ne feebar dareet nit ki bu fekkee ne dareetam dafa dafa dafa dafa feebar rek si feebar yi ma la wax nii yi si mën doon rek kàttan gi dafay néew ndax bu fa bu ko defee rek sakkar bi du mën a jug loo may indi faiblesse sexuelle waaye lu mu si mën doon ba daal incha allah nit ki bu fekkee ne jàkkarloo jàkkaarloo ak ñun euh, wax ñu soxlaam incha allah dina ko jox loo xam bi nga ko joxee dina yëgg boppam te lépp loo xamante ne moo taxoon euh, maanaam moo koy indiloon impuissance euh, sexuelle li lépp incha allah dina ko kii ba mu raxas dara ji lépp ba mu set euh, nekkaat nam nam nam nam nam meloon bu fekkee ne lu naturel la laa wax waxuma nag loo xam ne da nga koo judduwaale bu ko judduwaale nag moom mënu ma si dara waaye bu fekkee ko moom li ma lay jox ba mu la ko joxee moom da nga tàggu impuissance euh, sexuelle incha allah d'accord hmm. sëñ bi ma ñëw ci li nga xamante ni tamit jamono ji ku nekk nga koy mbuboo hmm. te nga yor ci boo xamante ni da koy jox hmm. date ni ko jour bi wala heure bi bu jotee dinaa la ko jox génn mu di wax lu noob. waaw noob nag moom bari nañ si ay kii yoo xamante ne mun nag suñu noob moom daanaka du yàgg waaw noob moom mm, noob moom du bokkul yi nga xamante ne dañ lay àppal ay bis ak yu bu loo ko defee 24 heures mën ngaa gis résultat. waaw mën ngaa gis waaye nag ci kaw ñu seet ko ba noppi dañ koy seet ba noppi xam tamit li xamante ne moom si lañ ko nii lañ ko liggéeyee ndax boo xoolee noot lu xaw lu tax nit ñi. ñu baree bari bu la defalee noot du jàpp maanaam ñu bare dañ may jàmmal lu mel noonu na man dem naa si fukki séeréer si séeréer dem naa si fukki euh, sëriñ ñaan la ba sonn waaye li may bëgg mënu ma koo am waaye nag euh, lu koy waral mooy nit ki bu fekkee ne koy ñaana war war ko kii tax xamoo maanaam seetuloo ko ba gis ko xam nga seet moom dafa bari sëriñ yoo xam ne dañuy mën a ñaan waaye duñ mën a seet loolu tamit jafe-jafe la am na sëriñ yoo xam ne dañuy mën a seet waaye duñ mën a ñaan te sëriñ nag pour ma mën a nekk sëriñ il faut yu yëpp daje si moom seet maanaam da ngay seet nit ki gis ko xam kii lan moo ko gàllankoor nit ki boo ko ñaanalee gisul lim ñaanal rek am na lu ko gàllankoor la ko gàllankoor nag loolu ngay jéem a wëri ba xam ne lii lan moo tax kii nii maanaam li nga koy ñaanal lépp mënu mënu mënu koo gis loolu lépp dafa am loo xamante ne rab dana ko def léegi-léegi tamit euh, nit ki maanaam lu ñuy wax euh, maanaam bu fekkee ne nit ki dafa dafa dafa da maanaam dafa dafa protéger wu tamit loolu lépp tamit daf daf daf siy suyee léegi bu fekkee nit ki da nga koo xool ba xam xam ni nga koy jàppee ndax dafa am ñoo xamante ne pour nga mën leen a jàpp suba nga leen jàpp waxtu wi xamante ne si la ñuy tëdd maanaam waxtu wi nga xamante ne euh, waxtu ñuy tëdd waaye waxtu ñuy doxu waxtu yoo xam ne dañ koy dañ koy dox bu fekkee nit ki ko xool mu nekk nitu guddi da koy da bàyyi ba suba maanaam waxtu suba nga koy jàpp bu fekkee nit ki dafa nekk waxtu woo xamante ne maanaam doxam dafa nekk doxu suba dangay bàyyi ba guddi nga jàpp ko loolu lépp ci seet da nga ko mën a xool xam kii raw xanam ban heure lay jug nga sa heure boobu nag nga nga sa heure boobu nag jàpp ko waaye daal euh, moom ku ko defal incha allah 24 heures nga gis résultat waaw. ma ñëw ci wàllu rab nga xamante ni tamit sonal nañu bari. léegi da ngay gis sax xale jigéen ñi leen di nga ñaam malaise. Mhm. yóbbu na leen ci docteur yi fu ne yóbbu nañ leen fa te alors que rab moo leen jàpp. waaw rab nag euh, bu nee rab rab nag moom mooy jinne mooy seytaane xam naa arab nag mooy wax mooy wax euh, jinne ñu bari sax dañ koy laaj question yu bari naan waaye nag rab moom mooy jinne mooy seytaane euh, jinne ay xeet la nag xam nga jinne moom bu fekkee ne jinne joo daf lay jax jax-jaxase jax-jaxe di jax sa xel di la yóbbu si luy bon maanaam di jax-jaxe sa xel loolu la ñu wooye seytaane waaye moom mooy jinne lépp la moom mooy jinne waaye nag rab nag moom dafa am ay xeet maanaam rab dafa am ay indi dafa am comme ni nit ñi wuutee am ay ethnie maanaam ay ay xeet yoo xamante ne nit ñi dañ koo def noonu la rab yi amee ay ay xeet am rab yoo xamante ne rab yi cosaan lay doon rab yoo xam ne say maam lañ lay topp defe naa barki démb rek am na ku ma doon seetlu mu mel noonu bi ko xoolee ma ne ko say say maam am na ko soo koo xamante ne yoroon naa euh, maanaam daan naa jëfandikoo ay jinne euh, bi ma ko maanaam kooku noonu dafa nekk koo xamante ne dafa taxawoon maanaam dafa am na 30 ans 30 ans yi sax teg na mënut a am borom kër lu ma ko xoolalee ma ne ko dafa am sa maam koo xam ne dafa dafa woon ay dafa yoroon ay wér di jinne kooku noonu rab yooyu noonu moo la topp moo war a say mbir dem noonu moo war a ku ñëwra day dem ba mu demee ba mu gëstu ko mu ne waaw wax nga dëgg sama maam am na sama benn maam boo xamante ne yu mel ne suñ suñ dëkk yi dëkk cosaane daan na ko def ma ne rab yooyu ne moo la topp da ngay dem sa ji waaw rab nag moom bokk na si yi nga xamante ne moom euh, comme ni ma ko waxee rab yoo xamante ne rab yi cosaan la ñu doon waaye rab yooyu nag en général du nekk rab yoo xam dañ lay attaque di la yàqal di la daanul ay raba yu demee noonu rabi cosaan moom foo fekk da nekk loo xamante ne euh, maanaam dañ lay dugg waaye dañ lay yàq sa wàllu wërsëg lépp dañ koy def am rab yoo xamante ne moom dañuy xool nit ki rek gis gis la bëgg la waaw rab maanaam nit ni muy gisee morom nitam bëgg ko noonu la rab di gisee nit bëgg ko euh, rab ak jinn ak nit nag lu la wóote la mooy nit bu la bëggee loo bëgg da la koy defal waaye bu fekkee ne rab la bu la bëggee loo am da da da koy yàq man da yàq sa lépp da koy yàq da fiire daal bu fekkee ne daa am koy bëgg dana fexe boo xam doo ko bëgg wala moom du la bëgg ki ngay bëgg du ko bëgg doo ko du la bëgg ki la bëggu rek moom moom ngay bëgg maanaam noonu la noonu la lay def ki nga ne ba bëggu tamit bu dee ba bëgg la yow dootoo ko bëggati rab moom noonu noonu la lay def da lay maanaam bëgg dara loo xam ne yow lu la neex lay doon bu fekkee sa wàllu alal la da koy yàq da koy kii lu tegu sa loxo da koy da koy seeyal wërsëg tamit du la yomb dalay tëj loo wut du ko du ko sa sa àdduna bépp la yàq waaw loolu daal rab dana ko def euh, am na rab yoo xamante ne bu duggee moom rab yooyu en général mais rab yi xam ne rab yi la ñu doon ay rab ak yu dem noonu waaw si mën doon incha allah bi nga ko seetal ba xam ko ba xam la la moom dañ koy liggéey si wàllu bëy rab moom wàllu bëy xam nga bëy moom dafa nekk euh, kii boo xamante ne bu mystique la boo xoolee bëy léppam maanaam euh, rab ñimul bëy bëy léppam maanaam mystique la da da luy jariñ la euh, boo xoolee sax béjjën yi mag ñi daan nañ def ne daan def jël béjjënu béy di ko di ko euh, suul si biir kër gi ndax euh, rab maanaam seytaan dafa ragal béjjën béy dafa ragal sax béy moo tax lépp lu ñu liggéey si bopp béy lañ koy liggéey rab moom lu mën ak nu mën di toll ak doole ju mën di am bu ñu ko liggéeyee sox la ñuy sox si si bopp béy ram maanaam tuur deret béy li li ñu war a def ñu def ko si bopp béy bi ñu ko defee rab lu ma kii dana dana tàggoo ak yow waaw incha allah. d'accord ci secret laurier bi tamit mm-hmm. daanaka fi mu toll nii mu ngi toj dëkk bi. Mm-hmm. nga yor ci secret yoo xam ne tamit doy na war trop. Mm-hmm. waaw dafa nekk garab goo xamante ne garab gu am solo la waaye nag garab goo xam ne garab gu yàgg Afrique la goo xamante ne maam yi dañu ko jëfandikoo waaye nag euh, mi ngi bàyyeekoo si réew arab ya boo xoolee buur yi njëkk yi moom lañ daan jëfandikoo buur ya si leen daan fajoo si leen daan def wàllu mystique yëpp si leen ko daan def. boo xoolee ancien romain yi maanaam grec yi ñoom boo xoolee laurier dafa am symbole si ñoom boo xoolee seen ancien di diine yi mooy ancien euh, ancien kii nu tudd sax ancien ancien grec seen diine yi njëkk ya boo xoolee boo demee si histoire dafa am symbole maanaam ni fleur amee amee symbole si si tubaab yi noonu la amee symbole si ñoom moo tax boo demee Europe dangay fekk ñu ñu jëmbat ko si si si mbedd yi wala ñu ñu ñu ñu kii ko seen kër yi daal seen ñu wërale ko seen kër yi ndax dafa nekk loo xamante ne Euh, ci wàllu cat maanaam boo ko defee si kër lu lépp luy cat du fa dugg moom laurier laurier seytaane maanaam seytaan da ko ragal moom itam boo ko duggee maanaam bu fekkee ne kër goo xam dafa bari coow euh, njaboot gi njaboot gi jaxasoo kër gi bari coow kër gi lëj boo ko jëlee nga jël laurier nga boole kook euh, lu ma neefere mbaam ak libaa nga taal ko sa kër boo ko defee kër gi ñëppay juboo bu fekkee ne tamit ñi nga xamante ne tamit maanaam lu mal ne ki nga xamante ne dafa amee jabet tamit jabet wàllu jabet moom bu jëlee laurier bu ko bu ko bu ko booleeg euh, maanaam da koy da koy jël mu boole ko sab-sab sab-sab bu wow bi lay jël sab-sab bu wow bi boo ko boo ko boo ko xoolee dana am lu mën a gerte lu si nekk loolu na boo ko jëlee moom lay jël baxal ko boole leen baxal ko baxal ko ba mu ñor bu ko naanee wala wala jabet dootu ko sonal dana dund te du am jafe jafe-jafe kii laurier na dana def bayre wala bayre bayre boo xamante ne bayre bu foor lay waaye nag laurier li mu gën a efficace mooy bayre jigéen surtout bayre jigéen wala bayre tubaab si la gën a efficace comme li ma ko waxee léegi dafa am maa rawxaanam dafa nekk rawxaanu rawxaanu jigéen ak rawxaanu tubaab loo ma waral li nga siy liggéey bi nga ko liggéey ba noppi nit ki bu la ko joxee léegi nii danaan la jël ko nga nga isin ko boo ko isin laal ko rek sa yaram lu mu gàtt gàtt maanaam fi nga taxaw nit ñi bari dana fa toog foo toog rek nit ñi dana fa fees dell. Uh-huh. Ah, lu mooy surtout bayre jigéen jigéen ñi moom dañ topp bayre tubaab tamit noonu la si gaawee. yeneen bayre nag bu fekkee ne bayre boo xam ne surtout ñi nga xamante ne dañu yor place place boo xamante ne maanaam marchandise yi marchandise jigéen moo fa nekk moom bayre boobu bu la ko joxee maanaam maanaam sa sa kii du taxaw. Uh-huh. waaye nag bu fekkee yeneen bayre bayre boo xamante ne général lay doon góor ak jigéen moom itam yeneen liggéey lañ koy liggéey waaye daal laurier daal yor nañ si ay kii yoo xamante ne incha allah lu mu si man doon si laurier lañ koy liggéeyee ci wàllu bayre si lañ koy liggéey si wàllu seytaane si lañ ko liggéey si wàllu rab tamit danañ ko faje si si si laurier uh-huh. waaw loolu daal mooy kii bi waa incha allah uh-huh. d' accord jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen àndoon nañu duñu suivre maamoon mbégte dalal ko li may wax ni jamono moom bu tollee fenn fi da daw xool ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc tey moom laa dalaloon fii mu di sëriñ Moustapha Sylla borom solution numéro téléphone baa noonu di daw ci service commercial bi boo ko soxlaa mën nga ko lépp loo xamante ni aajo jaam ñi la rek incha allah dina la ko fajal euh, sëñ bi euh, looy tàggatoo waaw di sant ñëpp rek képp la sant di jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ànd ak ñun duñu siibu di leen jox yeneen di daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf